yi nag bi ci jiitu mooy sant yàlla bii nu yàlla mayee wér ak man tal ba ñu mën a jooxe ndigal li nga xam ne ci la ñu bàyyi koo démb muy matuk weeru mu nekk suñu wutu koor néew mu na ko yàlla nangu na ko fu yàq sëriñ baa ngi nuy ndokkeel di ñu dénk nag ay kàddu di ñu xamal ne yëggutoo mu ngi doon séentu weeru koor mi ngi nii duñu tàgg la muy tegtale nag mooy lu nuyoo rek tàggoon lépp loo séen bopp ba léegi tey cat la romb la su dee loo xam ne mën nga ca yóbbante na nga gaaw ndax du nekk la muy tegtale it ba tey mooy wane ne am na weer wu mat sëkk woo xam ni yées na ci sunu dund bis ni ki nañu fexe ba gan googu fi ñëwoon di weeru koor gan moom mënees na ko tere lu nekk ba mu des dem nett li lam fa fekk buy nett li yàlla nañu nett li lépp di lu yiw yonent bi nag sallallahu alayhi wa moo daan ñaan bu weeru koor di dem naan allahuma la tajaalhu axira al iyaa fa in jaaltahu fajaalni marxuman wala tajal wala maxruma mooy yàlla bu mu doon suñu mujj koor ñi nga xam ne yàlla dogal na li muy dogal ci ñoom ba noppi yërëm te ñun ñi fi desandi yàlla bu mu ñu xañ yoolu weeru koor bi kàddu ñaareel gi dénkaane Cheikh Mahamadul Fadl la woon daana wax ci làmmiñu boppam ba mu yàgg waxukaay ñëw mu di ko ca waxlu muy ñett muy ñu maase ci tuub di sàkk sarax tey balonte xaq tuub nag su weeru koor jàllee nga xam ne lay dem dem na kenn ku ne xam na boppam na futti kuwaat te ñama ko war a wax xam ne ndigalu suñu borom moo fa nekkoon waaye ndigalu suñu borom day wéy ni weeru koor yu wéyee kon boog tuub suñu borom moo ko santaane ci alquran tuubu ilallahi tawbatan nasuha wa tuubu ila llahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun mooy nit ki xoolaat gannaawam la ko ca wóor ne mënoon naa gën a jàkk mu fës yéene rëcc ko teg su ca tegaat tànkam moom yàlla ni ko yàlla jàppandalal bu kenn def loo xam ne nag ci ay rëcc-rëcc moo xam mu jublu ko ca wala jubluwu ko ca ba defee ne yàlla du ko jéggal ahakay ku tuub yàlla jéggal ko qul yaa ibaadiya alladina la taqnatu min rahmatillah inna allaha dunuba jamian innahu huwa alghafuru rahim sakk suñu boroom mi ngi ñuy wax ci alquran ne ku jot ci bataaxalu yonent bi ne yàllaa ko yónni na ko gëm te di dimbale ku war a dimbale ndax lii ñu ñuy dimbale ñi ñu war a dimbale kat suñu leen ci dimbale wutit ëllëg bi si bi dañ koy saam a ko suñ ko naaw aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma fii falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir dellu wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm gu wér dee leen dimbale ñi ngeen war a dimbale ci seen teyu bakkan balaa béy di wéy mbuus yaa ayuha alladina amanu anfiqu min tayibati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ard anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bayun fihi wala xullatun wala shafaa kon boog sàkk sarax euh, sarax yaatu na dem na ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba ci lii nit kiy joxe sax waa këram di ko dunde mën na caa am yoolub joxe as yoolub saraxe ba ca dolliku te moom lay jeexale mooy baloonte xaq baloonte xaq suñu boroom nee na ku bëgg ñu di ko baal nay bale <clears throat> fal <clears throat> wal yaafu wal yasfaxu alaa tuxibuuna an yaxfira allahu lakum fa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala allah kon boog kenn ku ci nekk na xool moroomam bu fekkee jege na ko ne ko jàpp loxo te mu dëggu ci moom mu ne ko baal ma bu fekkee xam na ko ak bu ko xamut lépp ndax mën naa juum wax ci ab deram loo xam ne koo ko yëgu ko te yàlla dara du rëcc ci moom yàlla noonu yàlla boole jéggal sëriñ bi nag nee na fi mu koy tëje mooy mu ngi ñaanal sëriñ Touba Cheikh mun Mountakha suñu borom may ko ak wér <clears throat> te yàggal ko fi <clears throat> te àggaleel ko naalam yëpp te saa bu geesoo nag gis ñu ci gannaawam sëriñ bi neena na mi ngi ñaan ñu ñaanal ko sëriñ Abou Baraka moom Cheikh Mahmoudou Fadal mi nga xam ne ci ay lay waxe moom suñu borom bàyyi ko fi ba àggaleel ko ay naalam te ñu ñëpp ñu topp ci ginnaawam di ñaan mbooloo mi yëpp itam ñu ñaanal suñu Abdou Fatah mii nga xam ne moo fi toog suñu borom yàggal ko fi ba mu yàgg fee nekkal sëriñ bi moom mbooleem bokkam yi nga xam ne ñoom la fi dendal di ñaanal jullit yépp ci réew mi ak bitim réew suñu borom dolli jàmm ji te def naataange ci réew mi te nawet bi nga xam ne moom la ñuy jubit sëriñ bi nee mi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu doon nawet bu teel bu barkeel te ñu muurloo ko ak mbooleem liggéey bu nit mën a def gannaaw bu jige ci julli gi suñu borom defal ko ca barke ak yaatal ba kum ca bëgg a dimbale mu mën la caa dimbale di ñaan jàmm ci réew mi bu baax a baax a baax a baax am na fi waaye ne ko yàlla gën a dolli di koo ñaan itam fépp fu ab jullit nekk ak fépp fu doom aadama nekk di fàttaliku ci ñaan itam bu baax a baax a baax suñu bokk yi nga xam ne dañu fee bokkoon ak ñoom nekk daaw te seen yaafus yóbbuwu leen sëriñ bi nee na na ñëpp ñaan kenn ku nekk xam-xam ak pën xamut suñu borom dool yërmande ci ñoom ndax kat am na si ñooñ fii lañu ñu bokkoon ak ñun nekk daaw wala feneen fekke bisub tey te fekke wuñ ko ren ñun ñii fi des nag du suñu njàmbaar du suñu ñawte mbaax suñu boroom la yàlla nañu ko fekke déwén te mu ànd ak dal ak sago te suñu kilifa yit suñu borom bàyyi leen fi ndax ñu yomba àndal lañ yàlla yàlla yàggal ci njaboot gi ci kanam njaboot gi te yàggal njaboot gi seen gannaaw eh, kàddu yooyu la sëñ bi waxoon jotali ko eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah kullu am wa antum bi xeyr amin amin allahumma amin allahumma amin amin